di nuyu jullit di nuyu lislaam di asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu comme kii lim laaj ci question bi mooy koo xam ne dafa wala muy gént di sëy wala muy tëdd guddi di ragal ci néegam wala muy tëdd guddi li sentir am na lu am na lu ñëw ci néeg bi ci kaw bu fayee làmp bi wala muy tëdd guddi léeg-léeg muy bu dee jigéen la muy gént di sëy góor bu dee góor la muy gént di sëy jigéen parfois mu ne day dikkee léeg koo xam da comme koo ko xam ne da koo xam naa nekk rakam wala magam wala mu nekk koo xam ne xam na ko bu yàgg te gisatu ko waa loolu li ci gën a gaaw muut xob limoon 66 xob limoon bind ci xob ne mu bind ci yaa xayu yaa xayuum yaa xayu yaa ci bind xob ne ba xobee mat mu weer ko ba mu wow mu dëbb ko ko dëbbee ba pare wut benn cuuraay bi ñuy tuddee mustaka ak jaawiya ak parfum kaafin kaafin def ko ci moom mu sangoo ko ñetti fan bu ko defee ada turam ak turu yaayam lay adat bu ko adatee ba pare weddi ko yaa xay yaa xayum trois jours bu ko defee moom rab bi nekkal ci moom dootu gént di seeti rab bi dootu ko yàqalati dara loo xam ne lu bon la di jukki ci wàllu rab dootu ko yàqalati moom question bu moom loolu lañ ci tontu waaw jërëjëf asalaamaaleykum wa rahmatullahi Ya, aduna ay nattu kese ay nit yu jubóowul sen bi ku ci nek bëgg xagn sa morom bëgg-bëggam nit ñi di soxorante ñii di yenente lu bon ña ca desit di la fexel di li liggey ba sa aduna yaqku mbokk yi daan ci lu yaatu ñu naan ragal yépp yalla la yalla suñu borom bom ñu nattoowe boole nok ay nit yu mandul dara boole nok itam ay nit yi nga xamantene ni sa yu nu xëyee ñi ngi xol nu ñuy fexele nit ca boba ca fa sasa lunu suñu borom li tam fii ci àdduna ay borom xam-xam yu mucc ay mën seen liggéey lool te di ci dimbali doomu aadama yi mbokk yi jëmm yooyee Cheikh Bara Niane mii ci la te di ju am solo lool di xëy ak a gont ci soxlaay doomu aadama yi ci seeni jafe-jafe ak seeni ay tawat dina leen dimbali ci lu jëm ci wàllu listixaar lépp lu bëgg seetlu xool ko settantal ko balaa nga ciy dugga mën na la ci dimbali ci diir bu gaaw te mu am solo lool moom sëriñ bi dina yëngatu ci ñaan ñuy sëy seen diggante bëgg mu tax ay ñaan góor gu bëgg soxna tële ko lool manqué wul dara waaye mu mel ni am na lu koy gàllankoor Serigne Cheikh Bara Niane mooy ki li ciy dimbali ba mu àntu te doo ci am benn jafe-jafe naka noonu it jigéen bu bëgg borom kër Serigne Cheikh Bara Niane sawar na ci lool ngir ñaanal la ndax lépp lu la koy tere loolee la lay fànqal ci kàttanu borom bi mbokk yéen ñi rab sonal lool moo xam ci góor ñi wala ci jigéen ñi Serigne Cheikh Bara Niane dina la ci ñaanal ay ñaan yu am solo yéen ñi nga xamante ne ni ay nit dañoo jóg seen kaw di leen liggéey te ngeen bëgg koo dindi Serigne Cheikh Bara Niane mën na la ci dimbali ci lu gaaw a gaaw yéen ñi bëgg bayre ci anam ba ngeen di yëngatu Serigne bi mën na la ci dimbali bu baax a baax bayre boobu sax dina la jox saabu bayre yi defaral la it ay càngat yu am solo xam-xam bu sell nag ci lay yëngatu muy ay ñaan yi mu lay defal ci anam gu mucc ayib yéen ñi bëgg a jokkoo ak gaaw gaaw woo ko ci 78 586 47 47 76 283 35 35